aousubillah min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu santee yàlla buur bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadul Xadim di ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp di leen jottali ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu tamay ko wér wàcc ci suñu jëwriñ di sëriñ Cheikh Mbacké moom sëñ Abdou kon ñu déglu kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi wàcc ci sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou kon ñu jox ko kàddu gi ñu déglu ko bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yi ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di jottali nuyu yëpp Cheikh Mamadou Mountakha ak cantam ak ngërëmam leen daan wax rek ne Sëriñ Muntaxa day xam na bu baax a baax cofeel gi bindee fi am ci moom te cofeel googu romb na taalibe yi ba àgg jullit yëpp romb jullit yëpp ba àgg ci kulib sénégalais ñu di jullit sax xam nañ ne am nañ ci moom cofeel te dañ koy wax dañuy jóg fi ñëw waaye moom itam loolu yi da koy delloo day wax ne cofeel gi amal na ko ñëpp taalibe yi bokki jullit yëpp ba ba ñu di jullit dëkk ci réew mi sax am naa na ko lislaam sax daane sëñ bi mi ngi nuyu ñëpp di leen xamal ne cofeel gi ak jéego ak yitte yi xam na ko bu baax a baax ci jàll lépp fu ñu ci mas a toll ngeen fa moom fu mu fi mas a nekk ci liggéey bi ànd ak moom ci liggéey ba te loolu la dox ba fi mu ne ba bisub tey ji naa ne bi mu fii jóge dem Poroxaan waxoon na yónnee woon na ay kàddu ngir ñu tàggu leen yoo xam ne nañ taxawal daayira yi bañ dem Poroxaan ba ñëw dem nañ ba ñëw jàmm ci alhamdulilah rabbil kon mi ngi sant yàlla bu baax di sant sëñ bu baax di sant bokk yi ñëwoon Poroxaan ñëpp di ñaan ñëpp jële fa bi ak barkeb soxna jaara na fa toppe waaye moo xam ne nag kon bi mu ba noppi da ci dolli war rek gannaaw cant gi ay kàddu yu néew ngir xam le ne bëgg na ñu mayaat ko tuuti rek mu wéyal noppalu bi ak dal gi ndax xam nañ ne kenn ku xam ne fii atam toll ak fi fi jamonom toll kon daa bëggoon ñu mayaat ko ab diir diiru weer bam noppalu coono poroxaan yi ak bagante bi mu door a tàmbaliwaat liggéey bi ndax moom ni mu koy waxee rek liggéey benn fi bàyyi liggéey bi sëñ bi rek mooy mooy suñu yitte feeg mu fi nekk dañ ko ñaanal mu yàgg fi te wér te di ko man nee na fekk mu defee ne di ko man liggéey bi rek mooy yitteem kon ñëpp dañ ko ñaanal ak nekk fi ak man ko ba ban man naa moom ànd ak moom liggéey bi waaye nag ñu may ko rek diir bu gàtt boobu mu ñaan diir bu weer rek ba ba nga xam ne bu génnee koor gi li cay des du bari mu mën a ñu mën a waajal koor gi mën a tàmbaliwaat liggéey bi mën a saafante mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp ak mbokki réew mi yëpp ko defee nag buñ duggee ci koor ga itam lay programme koor ga mu joxewaat ko waaye li muy ñaan ci diggante bi daal mooy lam ñaanoon ba muy daa dem poroxaan ci ñu may daayira yi may ko mu dem poroxaan bu ñëw loolu lay sant ci dem na poroxaan bu ñëw di waxa ñaanaat ñu mayal ko ab diir diiru weer rek dana fekk baraxlu wa fekk itam Euh, koor gi jege ñu mën a tàmbaliwaat liggéey bi loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne moom la waxoon na ko jottali ñëpp ku ko dégg na ko jottali moroomam na sëñ bi nee na ñu may ko diiru weer kon fi mu ne nekk nii ñu ngi toll ci weeru janvier bi di dee kon nuñ ko may weeru février bi ñu mayal ko ba dee buñ buñ duggee rek ci weeru weeru mars wa waxee nag kañ lay tàmbali liggéey bi dese nañ ko waxee bu ngeen dégg ko incha allahu yal nañ ci àgg jàmm te mu yàgg fi te wér nekk fi te wér ah nag moom liggéey bi nekk ci gannaawam lu mu jàpp nu jàppale ko ca ba mu am ci ndam am ci ngërëmul sëñ bi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf mbokk jullit mbokk taalibe yi kon ñoo ko déggandoo kàddu yooyu moo bàyyi ko ci sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal fa loolu te may ko wér mu wàcc suñu jëwriñ ji toog di sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ bu ngir mu leeral ko mbokk jullit ak mbokk taalibe yëpp kon ñoo ko déggandoo kon nañ ko bàyyi xel